fii si Thiès ngénte ki nga xamee ni mooy euh, Ndeye Ndiaye bi nga xamee ni artiste comédien bi ñu dootul présente bokk na suñu fi teew suñu jigéenu bopp bébé Eva nag xam ngeen ni influenceuse la artiste la comédienne la bu ñu dootul présente la aussi même ci réew mi euh, tey ñu am mbégte dajeeg yow fii ci bésu ki nga xamee ni mooy Ndeye Ndiaye ak alu bi ñi nga am mbégte déjà bu baax a baax ci occasion bi euh, waaw congaan maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp bu ñëwee yàlla na ko def ci barke nga déplacé wu Dakar ñëw ba Thiès loolu day wane am na yëg-yëg mais aussi am na relation bu sincère ci sa diggante kii di Ndeye Ndiaye lan mooy sa diggante waaw moom nag sœur la euh, Ndeye Ndiaye sama sœur la sama xarit la nit ku baax la. nit la koo xam ne dafa am sens ci man parce que man dama nekk xale ñëw fekk ko si donc mu di ci jàpp bu baax a baax danjaay taayiwul ci man sonnul ci man euh, su demee ba aar ni mu toll moom rek moo am cëru magale ci man que tey bu yàlla dogaloon tey jii may am borom kër moom magale la loolu moom moo ko liggéey moom moo liggéey cër boobu noonu ba am ko ci man ñu jox ko ko moom it mu jëlal ko boppam ndax avant tout li mu ko jëlalee boppam tey ba ñu jox ko ko mooy que danjaay dina wootee dina ma nemmeeku dina xool ci lu ma nekk su ma amee problème dama koy gis bu duggee dakaar ñëwul kër kenn sama kër lay ñëw su amee ay projet dakaar yoo xam ne tey jii mënul ñëw man mii la yónni na Ndiaye pour moom diw bi mu war a diwoo ci yaramam sax bébé Eva moo ko war a lijjanti kon loolu du du ay cadre xaritoo wala dara mais mag la xarit la lépp la

yàlla dogal na ni du ma faral di wax ni sax diw mooy sama idole parce que kenn laa mës a wax ni ci àddina moom mooy sama idole muy Ngone Mbaye même moom référence la royuwaay la aussi parce que nekk na ci aar kenn mësul dégg lu fi Ndeye Ndiaye def wala lu fi Ndeye Ndiaye wax kon c'est très normal ñuy jël suñu bët di ko teg ci ñoom te yàlla dogal na ni man bi may nekk ci aar euh, boobu bébé baa amagul tur bi amagul sama bët bi dama ko ko mas a teg parce que nag ku nekk nit ku baax wala bëgg ci aar bi dara di nga jël sa bët teg ko ci nday Ndiaye ñoom la ma yàlla nattoo woon ma jël sama bët bi visé leen ko kon tey su àddina doxee ba man ak moom mësuñu bokk plateau mais mën naa ne tey boo ne boo nee Ndeye Ndiaye ne Soumboulou da nga naan parce que fexe naa ba ba dabe dabe nag ci ay nit yu baax nit yu am valeur nit yoo xam ne kenn déggu leen ci dara kon lii nii yëpp su amee tey moom la moom moo liggéey loolu noonu. waaw moom moo moo ñoo di ci man rak rek ma ñoo di ci moom mag. c'est ça. ndaanaan nga ci li nga ne moom tamit ndaanaan la mais bu ma la doon laaj ci côté vie professionnelle lan moo la gën a impressionné ci Ndeye Ndiaye si qualité de jeu ci aussi vraiment bi nga rôle yi nga xam ne léeg-léeg mu ngi koy joué te muy impressionné Sénégal. lépp Ndeye Ndiaye série bu mu nekk sax dañ koy xaar loolu yàlla defal na leen ko moom ak Soumboulou série bu ñu nekk ci àddina dañ leen di xaar mais mention spéciale Ndeye Ndiaye euh, moom fu mu nekk dañ koy xaar parce que dafay joxe. nit la koo xam ni jàng na ko en même temps talent bi dafa nekk ci moom xam nga tey mooy li may wax nit mën na jàngale lu nekk mais talent kenn du ko jàngal kenn loolu may yàlla la waaw te moom suñu borom sédd na ko ci donc ñu koy ñaanal gudd fan ak wér mu toog ba bébé bi mook alsaan di leen yóbbu màkk ci barke Seydina Mouhamed mais bu ñu amee na ku ñuy gërëm dëggantaan alsaan lay nekk waa parce que moom yàqu ci dara parce que tey gis nañ fi lu nekk am na talent di jànkoog moom am jëkkër jékki-jékki nga naan ay yow diw animu ñu ne la pourtant moo ngi fi fekk loolu noonu yëpp jëkkër ji moo ko liggéey waaw mais moom jëkkëram appuyé na ko jàppale na ko donc alsaan pour moom sax chaque jour dafa war a rester ci ginnaaw Ndeye Ndiaye di génn te liggéey bi yëpp nag alsaan la wax dëgg yàlla nit ku baax la ñun bokk nañu liggéey mu nekk nit ku baax nag alsaan nit ku yéene nit barke alxuraan nit ku baax nit ku yéene nit ndax euh, gis na nit ki boo dul gërëm nit doo gërëm yàlla euh, dafa am bi ñuy tourné kër sëñ bi bi may ñëw foofu noonu boobu maa ngi doog a maa ngi ngi doog a ñëw mais figurant laa fa nekkoon Alsaan fexe na ba ma am fa place te boobaak léegi projet bu ñu teg ci loxo Alsaan dafay jàpp ne bébé Eva war na cee mën a bokk waaw moom kon nañ ko ñaanal moom tamit gudd fan ak wér Alsaan nit ku baax la alors mën ngaa naan li mu mujjee joué marqué sénégalais mooy bété bété ah malgré toll na ci si diggante a loolu lan nga jàpp ni moo ko may facilitation. loolu artiste la. artiste waaw loolu artiste la loolu artiste moo ko mën gis nga tey mooy li may wax rek. série yi amaana moo tax mënuñu xàmmee ndaanaan yu bari mais ndaanaan yaa ngi ci biir ndaanaan yi te yàlla dogal na ni ñun ñu dem jàngi ji ko buñ nee der da ngay xam ne ñii ni am na ci lu ñu jaar te bu ñu tëddoon di nelaw sax boo ñu yeewee laaj ñu li ñu bëgg a laaj ñu tontu la li ñu la bëgg a parce que moom la jàng moom la ñu jàng te biir bu biir bu yàgg dañ ci nekk te Ndeye Ndiaye nag tubaarikàlla macha allah réew mi fii marqué na fi emprunté wax dëgg yàlla boo ko séenee da ngay xam ne kee Ndeye la waaye bu nee der nga daw waaw bari nañu nekk sa bu weesoo Ndeye Ndiaye daj moo ngi nii toog man sama xarit la Thiès sama xarit la à part Ndeye fii Thiès Thiès ak Baye Ndiaye ndax Baye tamit wax dëgg yàlla bu duggee dakaar ñëwul kër kenn sama kër lay nekk kii moom mention spéciale kii man ak moom leneen la waaw moom sama xarit la Thiès sama xarit la sama nit la mën na ma woo mën na ma conseiller mën na ma diggal lu baax barke alxuraan te du bëgg ma juum. Just mon mention spéciale fii Thiès waaw ñett ñi nag laa xam ne moom samay nit lañ fi donte ñu ci des ñëpp sekk naa ak ñoom jàmm ndax ay nit yu baax lañ waaw ay nit yu baax ñoo nekk Thiès. ci sa carrière d'artistique démission la da nga jël pause léegi daal BBFA influenceuse la Sénégal yëpp di gën di gis loolu choix la wala la di liggéey rek en tout cas même bu ñu tëddoon di nelaw mooy li ma la wax bu ñu nee bu ñu yee bu ñu nee bërëb def li ngeen soxla ñoo ngi lëlu di liggéey ubbil nañ porte yi ñëpp tamit. ndax yaakaar naa ni koor ak léegi yàggul te ku ne gis na gàlle no stress donc kon bébé ba moom mi ngi fi mu nekkoon ba tey man sama d'origine théâtre la TikTok bi dañ koy mottalikoo rek mooy li may wax tey am na ci xale yoo xam ne bu ñu tëjoon TikTok bi amatuñu lenn lu ñuy def man bu ñu tëjoon TikTok bi damay dellu sama kër sama kër mooy art théâtre loolu mooy sama kër donc may fa ba tey. non. nekk a toog 7 mois ñàkk parce que loo xam la loo miin la te man ba ma juddoo ba tey aar laa xam ndax boobu ba tey maa ngi ci nekk kon man moom laa xam mais nag benn instant mën nañu bañ a manqué parce que tamit mooy li ma wax dama toll ci moment wu fayee donc maa ngi gis projet yi mi ngi egsi mais amaana nañ ko bëggee ak man na ma ko bëggee moo mënul nekk waaxul ma sa dernier temps dañuy gis benn Eva am courage vraiment buy supporter lu bëree vraiment euh, joie de vivre bi nga xam ne aussi récemment gis nañ ne nga koy a gàllankoor. waaw mais àddina lépp muñ la. àddina lépp muñ la bi ma xamee ne benn nit a lay rey fukki nit suul la dama fexe jël sama sama àddina suukar ko donc noonu laa mës a dundee sax waaw man noonu laa mës dundee dama mës a dama mës a bëgg jàmm dama mës a nekk nit boo xam ne wax dëgg yàlla lu ma neex ak lu ma naqari nit du ko xam amaana nag mooy li ma wax rek internet moo xaw a doy waar mooy tax sax peut-être ñenn ñi ñenn ñi xam ci yow lu ñu wërta xam ci yow wala ñenn ñi di wax ci yow lu ñu xamul ci yow mais man loolu laa mës dund man fépp fu ma nekk na nit ñi di kaf di foo di reetaan laa xam waaw. siiw. non man nag kaay ma wax la lii daa yàgg man nag. coow daa yàgg ak caaw coow daa yàgg man musuma wàcc. nga kaay ma wax la ñaari ba ma juddoo ba tey coow topp na am na ci sama benn série bu ma ko doon ak bët bu mënoon ci man dara bu ma juddoo lay delluwaat loolu noonu lu ma gëm la de. dem naa fi ba Gàmbi coow loo xam ne fekkew ma ko ba mu amalante demalante pëlis sama tur moo jiitu ca pelante bi te nekkuma Sénégal nekkuma Sénégal xanaa loolay wax buñ ko cuub naa ko ba sonn nag mënuma ci dara. mais xam naa ko bu yàgg. xam naa ko bu yàgg des fois da ciy baax nga génn leeral pour ñu xamul mooy li may wax man ku ma sori mun nga maa bañ a comprendre waaye ku ma jege bëgg na nit ku baax laa. man satisfaction nga am sa diggante ak amut solo. àddina amut solo. àddina amut solo. réeroo amut solo. ci woon nga ko wala après ban satisfaction dama ne dama ne lépp gën rayante àddina amul solo man bébé Eva jomb naa di wax lu ñaaw wala ma di ko def di ma ko def sama naaw la. kon man nañ xaaraat live yi na non loolu nag loolu nag loolu nag dama ne woon sax duma ci wax parce que wax nañ ci wax nañ ci loolu noonu ba pare jàll na kon kon am na loo xam ne duñ ci waxaat mais gis nga fi mu ne nii ku ci nekk rek. da ngay wut loo yóbbul sa njaboot ku ci nekk da ngay wut tamit loo xam ne moom ngay liggéey pour yóbbu ko seen kër jàmm dellu si na am na ndax àddina amul solo waaye mais ku ci nekk nag fi na nii da ngay rayante loo yóbbul sa njaboot. présentement bu amoon message boo xam ne bëgg nga ko jàllale vraiment ci jigéen ñi nga xamee ni xëy na ñu ngi entreprendre wala bëgg nañ ñu mel ni bébé Eva souvent aussi ngay dund harcèlement Sénégal yu bari bari aussi du compétir ak yow ci yi nga doon dund tey nga si ko ba teg si lan lay doon. gëm sa bopp nañ gëm seen bopp ñu am fit. fii réew la boo xam ne dafa naqaree dundee neex a deewee dégg ma réew la boo xam ne dafa naqaree dundee neex a deewee takkal sa fit jàmm yombul nag yombul de ku la wax ne yomb na waxul dëgg parce que des fois du doon yow yow tul nga wax ji sa njaboot ñi la jege ñi la bëgg te bëgg nit dafa metti soo jooyee ñu jooy boo reetaanee ñu reetaan dafa metti des fois sa biir famille xamuñu sa biir famille nu mu demee xamuñu ba xam sa yaay juboo naag ay séeram xamuñu des fois nga am ci koo xam ne doomu jàmbur yaa ngi koy ërtal di ko wax ju naqari di ko wax ju métti tey ba ci biir famille sax da dégg ku naan ko ñaw di ko jëwee après moom da koy dégg am lu mu ci wax donc nañuy sóoraale des fois nañuy sóoraale famille yi dañuy suuraale doomu jàmbur yi nañuy sóoraale wax ju ñaaw dafa ñaaw nit loo yenu ba àttanoo ko bul ko teg doomu jàmbur nit lépp loo yenu rek ba àttanoo ko bul ko teg doomu jàmbur donc loolu rek laa am ci lu may wax des fois dañuy sóora dëgg moo la ciy génne doon jàmbaar dëggantaan njaay moo la ciy génne nañ takk yi ñu doon jàmbaar loolu laa am ci lu may kan la luñ jote luñ jotee. ay waay loolu nag duma ci mën a xóot xam nga seetaanu ma ko seetaanu ma ko boobu ba tey maa ngi doon wàccee colis yeeg yooyu mooy Eva shop bi ci bagage yooyu laa nekk seetaanu ma dara nii nga may gisee man man mooy loolu yooyu yëpp dama ko xool yàlla xam nga Eva shop bi maa ngi ci temps boobu waaw xam nga mënuma cee xuus seetaanu ma ko moo tax mënuma cee xuus yàlla na yàlla def jàmm yàlla indiwaat jàmm ci senegal ndax fii jàmm rek moo fi xaj leneen xaju fi. ñoo far yow loo ma ñaan dama la koy lu yàggul dara dinaa